Fatou mbay maa ngi koy nuyu ci guddi rek ñoo bokk maa ngi moom ak Karamboj may nuyu Karamboj bu baax a baax di nuyu soxnaam Fatou Mbaye sama xarit bu baax sama séeréer bu baax boobu. yaa di nuyu Fatou Mbaye jéggal na la. moom ci guddi bi ma gisee dina ma wuli nan laa tudd. <laughs> ma ne ko Fatou Mbaye Fatou Mbaye nga tudd <laughs> waaw <laughs> ah, waxal gars yi ñaata avance nga yor. bari na ñeenti avance am naa ko mais amatu na ma jëlal yëpp am naa ñeenti combat. comme yow yaag Balla Gaye yem fu mu toll nii quatre avance. <laughs> Aziz Ndiaye bi ko wane man ne ma léegi yaag Balla taw ngeen mën a wax taw man moom ñeent donc lay yem. fu mu toll boo gisaatoon beneen avance doo jël. dinaa kay. <laughs>